asalaamaaleykum sama gars yi j'espère que vous allez bien noo yaakaaree ndaw réew mi mën nañ ko génnee réew bi rek ñoo ngi koy jéem 1200 jeunes lañ jàpp euh, keroog samedi ñu doon wutali île des Canaries ñii di jaar yoonu Nicaragua bi ñii di jaar yoonu gaal gi pour wutali fi nga xamante nii moom moo di Espagne kumba kumba am ndey amul ndey moo am ci langum politique bi du Ba moo ñuy defee tourne économique am nu mu neexee alkaati kenn du ko def dara fu mu toll nii daal Khalifa sàll ak euh, Malick Gakou ñi daal di leen bloqué Mimi Touré ne lii daal dafa mel ni campagne déguisée la fu mu toll nii DGE ba léegi moo ngi lànk bañ a jox Ousmane Sonko ay fiches parrainage am Fada Freddy ak Viviane Ndour def nañ jaloole bu rëy ci musique Lamine Camara bii bu mu dugal démb amul fenn loolu la ñëpp di waxtaane sant leen gërëm leen di leen jox euh, dig ba ëllëg incha jërë ngeen jëf